wax pour wax la histoire bi fii ni mu demee waaw du déedéet déedéet akay jàmbaar akay gaynde bul jooy bul jooy akay jàmbaar sa xol a fees alors su ngeen xoolee su ngeen xoolee fii ah su ngeen xoolee fii ma ne ma ñëw ma ñëw ma ñëw Ah, su ngeen xoolee fii eh. fii ñun bokk nañ ci ñi fi njëkk a dëkk suma waajur mi ngi ñafe ci jamono yi màccu màccu c'est-à-dire ci suma nopp sam papa way na vingt cinq ans soog di am terrain bu moomal boppam xanaa kooku bëgg na lu leew xanaa kooku ñafe na de jamono yi màccu màccu lay doog am lu mel nii bi mu ànd ak nit mu ne ko coon lii dafa rëy xanaa bëggu xaalis doo ko tabax xaaj ko ñaar comme sa nga luwee yéen yi mu ne ko déedéet damaa bëgg su ma tabaxalee sama njaboot ñu xam ne seen papa faj na ko ba tabaxal leen kër diñ te ngéwél fu leen neex jaar te kenn du wax taxaw leen fii boo ko xoolee xam ni ki ko tabax koo dëgg la fi dëkk bàyyiwu bi sax peinture lépp karu la il a fait de ses propres moyens mu tataan ma ci góorgóorlu tataan ma ci dem self-made man man je me suma yaay ji may dégg suma ñii suma naw lañ en quatre-vingt-dix-huit lam uti fàttali ko fu ma ne sama papa jox ma man xaw ma loolu xaw ma loolu góor dafa faytin addunaam ba nii mu génnee adduna parce que lu tax sama papa moom mus musul bëgg dignitéem ak fi mu tolloon dafa dafa kawe dafa kawe donc héritage boobu ma jël ci moom muy dignité ak bëgg baax ak ni ma forger ba ma doon góor tigi tigi tigi tigi cest góor du da ngay doon góor di dox nii bu ne lëng di xeex wala ngay saaga wala ngay déedéet góor ci xol la góor ci brain la góor ci ñeme engagement la ak mën a téye famille askan dañ koy téye bu la ci yàlla defee bidéw da nga koy téye man su ma lu ma am ci àdduna ak fit bu ma mën a am su ma ko gërëmewul kii kan laa koy gërëme ndax bu dama lay indil disque d'or Sénégal incha allah daa lay indil disque dama ne dama ne dama lay indil disque d'or mais man li ma gën a naqari suma àdduna mooy suma disque d'or suma papa du ko fekkee te barki Cheikhul Khadim dama leen di indil disque d'or bu dee dama ko indi ba pare bàyyi lu ma gëm la bind leen su ma fàttuwul su ma fàttuwul bind leen Cheikhul Khadim xam nañu dama leen di jox disque d'or yéen Sénégal c'est le minimum bu may indi alors man su ma gisee sax. <laughs> mënoo faatu. dina ko bëgg ndeysaan. am dégloo gaay s'il vous plaît. Nos pères, nous sommes fils de vous. Euh, Nabo. Suma papa génn na bokk ci famille génn bi muy tàmbalee dégg na bu baax bi muy tàmbalee da doon natt suma mam bu góor woon xirfawu magam bu jëkkër lañ ko defee autorisation ñëwal ñu yaayu journal bi ñaanal sama cousin yaayu naturel ñu koy wax roqale sekk sama maam dafa tàggoon na alkati bi sa papa bi ñu suuf ñu ne si bi xool ko muy góor bu am kii yeneen engagement léegi ñeneen njaboot coon lay wax pour ñëpp comprendre dafa daw bëgg sama papa dafa daw est-ce que man allo allo allo allo allo bu ma doonee pour wax pour wax la histoire bi fi mu demee waaw alors su ngeen xoolee su ngeen xoolee ah su ngeen xoolee fii xoolee ñëw ñëw ñëw alors su ngeen xoolee fii. ñun bokk nañ ci ñi fi njëkk a dëkk suma waajur mi ko jafe ci jamono yi màccu màccu cest ci suma ndaw sam papa war yam vingt cinq ans soog am terrain moom ak boppam xanaa kooku bëgg na lu leen xanaa kooku jafe na ci jamono yi màccu màccu am lu leen bi mu àndee nit mu ne ko coon ñi dafa nii xanaa bëgg ko xaalis doo ko tabax xaaj ko ñaar comme ça ñu ngi lay yëngu ñoo ko bii damaa bëgg su ma tabaxalee sama njaboot ñu xam ne seen papa faat na ko ma tabaxal leen kër diine yore fu la neex jaar te kenn doon wax taxaw yi fii boo ko xoolee xam ni ci ko tabax góor bëgg ni fi dëkk bari sax ko ci lépp kaw il a prévu ses propres moyens mu taataan ko ci góorgóorlu taataan ma ci dem self-made man je me rappelle suma yaay suma ministre may naw en quatre-vingt-dix-huit laa ko def appel papa jox ma man xaw ma loolu xaw ma loolu góor gi dafa fay ci àdduna ba ni mu génne àdduna sa papa moom mosul bëgg dignitéem ak fi mu tolloon dafa dafa kawe dafa kawe donc héritage boobu ma ak bëgg lu ak ni ma forgé ba ma doon góor tey c'est-à-dire góor du da ngay doon góor di dox nii bu ne dégg di xeex wala ngay saaga wala ngay déedéet góor ci xol góor ci engagement ak mën a téye fan askan bu mooy genre de dëkk bi ba continuer man su ma lu ma am ci àdduna ak tout mu mën a am su ma ko gënoon kii kan laa koy gën donc damay indi si doon Sénégal incha allah nar a indi si doon waaw damay indi si doon mais man li ma gën a naqari sama àdduna mooy su ma gis ko doon su ma baax ko fekk te barki Cheikhul Khadim damay indi si doon

la bàyyi. yow dina dugg fa. da ngay dugg fa ci kàttanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. c'était très dur. c'était très très très dur. ci biir Pambal. ñu ne ko woon bu ñu leen doon seet ay benn ñaar ñett la ñu doon. lépp loo waxoon na wax foofu. la mu doon bàyyi dañ koy forcer il a battu lui seul parce que Serigne Bamba papa ji forcer la ci forcer papa ji moo waxoon ak lépp mu nekk moo waxoon ak lépp parce que lépp dañ ko woon il y avait Ramdan et les musiciens il y avait tout il y avait des voitures il y avait des sax des vélos fii ici dans la maison papa ji xañ ko lépp moom danaa toog sax jékki-jékki ba ma amoon sa papa sa bëri ma ne ko non bu ñu wax loolu bañu la. sa papa yëngu na ma mais daa bëgg am mel. muy xuus affaire bi mett dañu daan def présentation bu set bi ñu sànnee xeer parce que ma suñuy nekk. ñu forcé dégg nga doy sama xol dafa set rek ba si doom dépassé naa ñu du ma sax moo nekk ma woon ñëw parce que moo ni ma bëgg a mel moom def na moom. lan la ko mën a lan la ko mën ñaari askan bi barki sëñ eh Pawlish dama la wax dama la dama la wax yaa ngi ñu toogal mënuñu ñoxe muy ñëpp gars yi di ñëw benn par benn muy ñoxe muy ñëpp gars yi di ñëw par ñaar ñaar barki Seydina Mohamed ba ñu jël sa place de barab bi nga xool fii la laa teg bilaama fii ñu nekk ngeen am sëkk fa leen doon toog ñu jékki-jékki te ay affaire commencé bañ bañ prébat yi taxar naa sax bu ñu jékki-jékki am prébat benn jour cinq affaire commencé bañ bañ ñu am ay prébat cinq fois ci benn jour ci ay école par deux ba teg bilaama ñu ñu ndaw bu ñu dawee sol kii rek gën ndaw ne par yenn bopp yi léeg-léeg sax yàlla di dem di dem di dem dem ba tey papa ji doog papa ji lay ci lay doog a wax waaw papa ji ko nga yow ah loolu lii laa bëggoon kon donc papa Thione gàcce na la waaye Wally Seck gàcce na la parce que il a eu. loolu loolu loolu la ko moom moom moom jërëjëf Papa Diop jërëjëf Papa Diop jërëjëf Papa Diop su nga nekk yàlla la gënal suuf jërëjëf suñu bopp jërëjëf.